alors mbokk yi yéen ñi bàyyi xel euh, suñu plateforme yu différent sur la chaîne de leader Senbuzz TV People 221 Dakar Buzz euh, ba tey ci ngénte bi nga xamee ni moom la Pawlish Mbaye woote li nga xamee ni yàlla terale na ko mu am ay jumeaux tey mu bokk ci ñi wuy si wooteem ñi ñëw aussi ngir jëmmal sa seen diggante ak moom Euh, soxna euh, soxna Ndiolé Tall di actrice bu ñu bëtul présenté soxna Ndiolé pour commencer rek dañu lay félicité boo fi teewee forcément sa teewaay dafay wane ni am nga relation bu dëgër dëgër ci sa digganteeg Pawlish mbay ginnaaw bi nga xamee ne njokkeel nañ la ci bis bi. waaw ñoo ngi sant yàlla mm, di julli ci Seydina Muhammad mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm euh, ak ñi ngi seetaan. di leen baal àq leen balu àq ndax léeg du ñàkk muy wax mhm. loo xam ne dérange na kenn ñoo ngi ciy jégalu ci ñëpp waaw Pawlish moom sama doom la mhm. euh, boo gisee ma naan doom euh, képp kuy góor jigéen mooy sa yaay mhm. moo tax léeg ñun ñëpp doom lañ leen di wax ndaxte respect bu mu am ci ñun ak yëg-yëg bu mu am ci ñun léeg-léeg naan nit da ngay gëj a gisee ak moom waaye bu amee bés ci lay xam ñëpp ñi nga xam ne mi ngi leen doon ji lu baax Pawlish sama doom la mais respecté bi ak défendre bi chaque jour di sonn ci man muy sama doom nag ci lépp fu mu ma romb bu yoree sax otom dina wàcc ñëw ne ma yaay kafre loolu rek man sama xol dafa sedd ndax nit ku nekk dangaa bëgg ko dangaa bëgg ku la yëg yëg-yëg googu mu am ci man moo tax ma ñëw xool si ko ñaanal seex yi ñu am gudd fan ak wér alors bala maa ñëw ci cheikh yi mu bokk ci ki ko tuddee kenn koo xam ni yaakaar naa ni Sénégal tamit réeroo wu ñu seen diggante muy soxna Bijou Ngoné mhm. ban satisfaction nga am bi nga yëgeen ñu ne euh, ku jigéen ki Bijou la ko tuddee waaw moom doful Pawlish doful mhm. euh, jigéen joo xam ne ñëpp bëgg nañoo mel ni moom ci jàmbaar personnalité mhm. euh, vraiment nangoo liggéey gëm boppam ah doful day juróom-ñaari jikko yi la bëgg mu jël ko ci Bijou ndax Bijou moom Bijou ñëpp la ñun war nañ ko dellu njukkal parce que wane nañu fu ne mm-hmm. défendre nañu fu ne moom tamit mm-hmm. ñoom munuñu leen a fay parce que ci benn côté ñun mën nañoo wax waaye ñoom mënuñoo wax mais mën nañu jëf kon dañu koy ñaanal mm-hmm. juróom-ñaari jikko yi bis yor ci liggéey bi vraiment doon jàmbaar doon jigéen joo xam ne dafa mën góor yàlla na ko wàllu turandoom bii nga xam ne Pawlish moom la ko tuddee moom nag du fàtte démb ndax ñàkk fàtte démb xëy na moo tax mu jël tur wi jox ko biisu Ngoné parce que ku ne xam ne ne carrière Pawlish Bijou daf ci jàpp nit nag bu jàppee ci sa carrière mm-hmm. dafa am loo xam ne mënta ñàkk nit ngi dañuy defe ne dara moo tax mais foog nga jël dara tuddee ko euh, Pawlish jur doom mm-hmm. mu yeewoo ci biir këram bu xëyee ne Bijou loolu neex na. très bien kon nag bisu ak Pawlish seen mm. diggante mm. yàlla bu ci seytaane man dara. amiin waaw yàlla na dee wopp seytaane dox. yàlla la fal ñu cap. parce que nit booy ànd ak moom. Mm. chaque jour boo yeewoo rek ci sab lal. Mm-hmm. ba nga xam ne dara jotu la. war ngaa ñaan yàlla la fal leen cap. parce que ñi ngi dañuy yàq ñi dañuy yàq ànd dañuy jaxasee dañuy féewale te loolu baaxul. aussi non seulement ba pare boole ci nekk dof ba pare boole ci réew c'est pas évident te te moom yëkkati na ay kàddu sedd yu am solo aussi tey jëmale ko ci soxna si yan kàddu ngay yëkkati waaw comme wax na soxnaam lu baax doful Pawlish doful gën a jàpp ko pantonlu ko mhm. dafa nekk kor na li mu doon xam nga ci liggéey mhm. <laughs> d'accord nga nekk dof mais après liggéey bu jeexee nit njaay nga mhm. yaa ngi dawal cotoy rafet yi yaa ngi dëkk ci lu dëkk yu baax yi. yaa ngi yor soxna su jongom waa léegi gan moo def. dof sax dinañu seex. moo yéen ñii damaa defeen tey. yéen dof gi yéen a dof parce que yéen a jë. kii xel mi dofut. xel mi doful. xel mi doful. waaw day dof dof lu muy de dof hmm. ma sa dof di moom daal dañu koy ñaanal yàlla lafal ko cat vraiment ah. man day sama ñëw ñëw tey mm-hmm. yëg naa ci sama bopp waaw sama doom la sama xarit la nag waaw <laughs> nit ñaa ngi dem ay dëju jàmbur bés la ay tuuru jàmbur laabaanu jàmbur ay lëmbalu jàmbur bés nit bésam kenn du ko xeebal bésam képp ku ñëw sama xew xool naa la te dofuma maa gën a yeewu ci yàlla bind te maa gën a réew ci àddina waaye maa gën a xam ay nit maa gën a xam fi war a ku ñëw soo bis cër boobu ma joxoon bu dee cent dama la jox deux cent yàlla bu la mayee tout tànk nga nekk xale yàlla may la ay seex nga xam ne yaa ngi mës a xew sa àddina moom mu ñëwal ma teewal ma kon dama koy gërëm di ko sant nit xol la nit xol du joxe ci mbedd romb fu la wax nga jooy joxe fu la gis nga jooy loolu du baax ngi sal ak bon kii mosumaa jox mosumaa may mais li may ndil nii moo dàq joxe moo dàq may moo dàq ay kër moo dàq ay xar parce que ñu toogee di seetaan télé man ak sama doom Bijou ak Seydouna Mouhamad di play ñu ne papa sama xew ko fi ñëw man ko sa tante Ndiolé ci en fait ci na léegi nag buñ laajee keneen dama naa ko ñëw bàyyi la jëwante bi seen biir eh. sax ni nga def parce que ba nga ñëw yàlla na yàlla gën a seetal nga sama xol bi ne Ndiolé seetal nga sama xol bi képp kuy tey taxaw nga ma bu <laughs> alors soxna Ndiolé c'est vrai que mënuma la si bañ bañ tey ñu bari dañ jàpp ne dafa ay incohérents yi am Pawlish doonte ne wax na ko ay waxu dof lay wax mm. euh, seede yi mu def tey jëmale ko ci famille soxna si lan la jigéen ñi war a mën a jàng wax ni ba may gën a ñàkk la ma soxna si topp guddeel na ma bëccëgal na ma message yooyu en tant que jigéen lan la si jigéen ñi mën waaw looloo tax moom tamit wàccul boppam mm-hmm. parce que jigéen bu la muñalee ba dara du dara mm-hmm. euh, bu succès bi yokk ba tax nga am noo ko def mm-hmm. da nga koy gën a jàppale parce que xam ne bi muy dugg ci yow xëy na déggoon na ay baat déggoon na ay wax waaye teewul dafa bàyyi loolu lépp ah ñëw ànd ak yow kon jigéen loo ko teral doy ku fi baax jigéen ay sa yaay sama doom la dama ñëw léegi ci kaw. fekk ko mu toog ma yëkkati xaalis di ko jox mu ne ma déedéet man ne ko ankay ah parce que li nga ñuy defal la te mënuñu ko defal suñu bopp. mënuñu tey def dara. taxawaat naan salaamaaleykum du man bu dee man yàlla naa dee non non ki la xam rek moo mën a wax te yàlla tax la mu xam ci yow. kon loolu ñun mënuñu leen a fay. mais soxna si na gën a góor góorgóorlu te xam ne Pawlish mi bëgg na ko takkul ko respecté la. dañuy ñaan yàlla daal yàlla la fal leen cat li may wax rek ci ànd ko bëgg bu ko gërëm nit koo bëgg mu leer na danga ko def ci sa xol bii bu ko gërëm ndax boo ko gërëmee seytaane day dugg te da ko yàq man day képp ku ma bëgg ci sama àddina dama lay ñaan rek yàlla la fal cat loolu lay ñaanal sama doom ji Maria Yacine muy sa biige la ci Diop Degen Mbaye Diop sa Degen Mbaye jàppale na ma fune yóbbu na ma fune wane la maa ñëpp giir gu mu am ju koy teral ju koy joxe million boole na ma ak moom mu teral ma kon mënu ma ko fay waaw moom moom chaque jour bu ma caméra yi tiimee rek du ma tàyyi di gërëm Wally Seck di ko ñaanal lépp lu jaaga waroon a dund ak con Seck yàlla na ko dund ak i rakam yàlla defal ko jàmm lafal ko cot waaw moom ma yàlla bëggee na ma bàyyi ak moom nga nga am occasion jaale tamit ki fi jógee euh, Gaston Mbengue bi nga xamee ni mu ngi doon yënguti ci lamb waaw sunu papa jooju ñu ngi koy ñaanal euh, yàlla xare ko àjjana vraiment moom fexe na ba li mu liggéey ci réew mi rafet na ndax référence la dama koy ñaanal yal na ko yàlla xaree àjjana Firdawsi waaw. merci beaucoup soxna Diop merci beaucoup